dëgg leeral yeeg Fatou bintu Diouf ñaareelu xaaju xibaar yi lu yéen a kaay xëye tey lay doon daañ leen ko jukkil mbokk yi bu nes ki see ba dikk ak yéen ci yaatalum xibaar yi leen ak jàmm ci xibaaru suba si ñu fas yéene ko door rek eh, jafe-jafe ca Tivaouane Peulh Euh, coowal suuf moo fa jibati askan fa nekk doon yaakaar euh, ñu jébal leen lu toll ci ñaar fukki hectare ci euh, ci wàllu dëkkuwaay te ba ba léegi daal nguur ki matalagu ko am ñu wëlbatiku bëgg a xajamal loole ba tax na ñoom am na ñu tiitaange lool ci seen ëllëg toogaanu ñaxtu nag lañ doon amal fii ci biir groupe Walfadjri dañ ci teewlu Pape Seydou Dramé mayor seen kaddu àdduna ci micro yaay Adama Diallo. fan yii yëpp moom dañu nekkoon ci travaux yi pour suñu wàllu vingt hectares yi mais gannaaw bañ si nekkee di ko liggéey parce que moom euh, président moom moo joxe woon directive pour nañu jox vingt hectare ci biir euh, assiette foofu noonu bu bu Tivaouane Peulh moo ko suñu maire Papis Diop Papis Diop ànd ak service compétent yëpp kenn desul nag ñëpp ñi ngi fi ñu war a toppatoo waxu suuf ba ci Pape Sabori njaay bu colonel Descos mi ngi fi woon d'ailleurs bu njëkk sax moo ñu tojoon. parce que nee ñun ñu dëkkee woon baaxul yaa ngi dégg mu ñëwaat président ci mbaaxam jox ñu foofu waat 20 hectares moom Pape Sabari bi ñuy implanté foofu 20 hectares yi moom fekkee na ko mais bi mu ñëwee bii yoon dafa ne léegi kon lii lañ leen jox dama bëgg ngeen terrassé ko ba mu mel ni terrain football terrassé nañ ko ba mu mel ni terrain football bi ñu ko terrassé ba mu tàlli ñeret def si tali latérite de 4 kilomètres jëlee ko ci rond point Namora bi ba ci biir 20 hectares yi Mame Boye Diao toog télé mu ne victime Tivaouane Peulh yi jox nañ leen 20 hectares d'ailleurs sax liggéey na ko ba mu pare mais sax dayu leen ñi ngi xool dañu leen dollee léegi nag mu ne à notre grande surprise bi ñu ko terrassé ba mu pare di xaar suñu avenant pour mun a séddale terrain ku nekk jot li nga moom moom Pape Sabori Ndiaye boobu ñëwoon implanté ko ne lii fii fii lañ leen jox mu ñëwaat encore bi ñu ko terrassé ba mu pare ba mu tàlli ñaareel ko ni ma ko waxee mu ne nag léegi bi yoon dañ fiy jógee waat léegi nag ñuy laaj ñun si ban Sénégal la ñu nekk parce que kiñ doomu aadama boo xam ne day jaay suuf te ñu fi dëkkee ñëpp ñi ñi ngay gis ñii ñëpp ku si nekk benn am ci 20 yooyu noonu waaye léegi booy jox mille quatre-vingt-seize personnes pour ñu dëkk ak benn doomu aadama boo xamante ne dafay wut lu mu jaay waa ngelaw waay benn boobu noonu ak mille yooyu noonu kan lañ war a jox mu dëkk ndax président war na xañ mille yooyu noonu pour benn doomu aadama boo xamante ne moom day jaay ay lettre lettre bind nañ ko pale lu ñu mën a wax mooy ñun victime yi ñu ngi lay ñaan monsieur le président de la république kër yi xamante ne ñun terrassé nañ ko ak suñu ñàkk wàccee fa kaamil def ay sarax ba sonn ci ngelaw waay nag ñu ko jox ñu jëm dëkkee ji ko loolu la ñuy président sonn nañu ma ngoog eh, doonoon càkkuteefu askan googe ca Tiwaawoon eh, pël eh, càkkuteefu sénéra bokk na ci ci wàccaayu koor gi ñu fexe ba waraatekat yi ñu bàyyi xel ci bañ a féewale këru diine yi rawatina yi tamit féewale askan wi sàkku nañu tamit ci organe de presse yi maanaam télévision yi ñu xoolaat seen doxalin ci weeru koor gi ñuy waajal dañ ci teewlu reportage yu Maamu Jaabi Gassama weer bu tedd gi di weeru koor mi ngi jege ci naka noonu sénéra di artu waarekat yi ak kërum tasum xabaar yi ngir ñu bañ a dugal réew mi ci guuta gannaaw bu ñu nemmeekuwee ab dëkkin bu rafet bi am diggante tarixa yi bile dogal ñëw na ci waxtuwam bu ñu sukkandikoo ci Pa Assane nekk chargé de production ca Sen TV dogal bi CNRA jël je que dafa ñëw ci heure am euh, laata ñuy dugg ci koor gi gis nañu daaw ak daaw jeeg yëpp gis nañu concurrence bi doon am ci chaîne de télé yii ci ay diggante tarix ak et loolu moom jekkut je pense que kilifa diine yi ànduñu ci ñaawlu nañ ko tiir la boo xam dañ ko war a rectifier euh, je pense que CNRA bu ci waxee araftu ci et de façon très ferme ñun dañ ciy ànd donc euh, ku ci nekk nag ak sa sens de responsabilité di nga xool nan ngay fexe ba loolu nga xam ni safar la mu teggeeku télé day defar parce que foofu la ñu CNRA woo ci fànn bi nañ ci dem ginnaaw ñenn ci waarekat di def ab concurrence ba nga xamante ni doy na waar lool diggante ay tarixa taskatu xabaar bi nekk tamit ab chroniqueur daal dina ñëwaat addu ci ñàkk teggin yaa nga xamante ne moom lañ nemmeeku ci yenn sketch ci jamono weeru koor diine bi ñuy foowee ci sketch yi ak téléfilm yi ak théâtre yi ba ci saaga yi sax lu mën ñàkk la mais Sénégal moo toll ci situation boo xam ni léegi ku ci nekk si ñun da ngay wut solution pour dund parce que dëkk bi dafa metti léegi boole nañu ñàkk kerse ci téléfilm yi ak théâtre yi ak tout ce qu'on mais wax yu ñàkk teggin je pense que war nañ rectifier le tir julli diine c'est personnel c'est privé du lu ñuy foowee ci écran télé genre damay julli julli lu euh, nit bi ñëw ma dagg julli bi ne ci leneen loolu du lu ñu war a war a war sax xale yi donc je pense que côté boobu war nañ mën rectifier mais loolu yëpp producteurs yi la ak réalisateurs yi malheureusement ñoom dañu jànkonteeg ay jafe-jafe mooy que tey nguuru Sénégal moo war a fexe ba situation bi évoluer dans un bon sens mooy ñu permettre nit ñi am économie bu baax dëkk bi suqali ko tuuti nit ñi delluwaat ci sensu nité pour mu bañ a dem rek ci dama war a bës lu ma neex wax wala damay summi sama tubéy ñu tudd ma ma siiw après ñi di wax ak man non. weeru koor war a nekk weer ba nga xamante ne dañ ciy jaamu yàlla def lu baax waaye warut a nekk weer ba nga xamante ne dañuy nemmeeku ay xiiru ak ŋaayo ci kërum tasum xabaar yi fii ci miim réew at yu njot a génn bu ñu sukkandikoo ci ñenn ña nga xamante ne yor nañ kàddu fii ci Sénégal. Mangog euh, ñu ngi koy jaajëfal Mamou Diaby Gassama tournée te doon amal foofe ca diwaanu Podor euh, jëm ci nemmeeku liggéey bi nga xamante ne nguur gi def na ko ci wàllu jumtukaay ci wàllu paj meek njàng meek euh, njàngale mi ba ci wàllu hydraulique euh, moom Moussa Sow ak meeting gam fa amal ca gox ba dañ ci teewlu abukan mboolo bu takku takku jóge fu nekk ci ci gox-goxaan yi nekk fépp ci diwaanu Podor ñoo teewe meeting bu mag te kii di maire de Walal de organiser ko ay militant ak ay militante APR ñoo feesa del ca place publique fi ñu doon amale ndaje googule Moussa Oumar Sow doon tey coordonnateur national du PUMA daal di rafetlu réalisation yu am solo yu njiitu réew mi amal fépp ci Sénégal te ñu ci gën a ràññee fii ci Île à ak ci département de Podor lii lépp nag ginnaaw biñ ko fale ci bopp réew mi. Plusieurs actions ont été initiées sous l'égide du ministère du développement communautaire de l'équité sociale et territoriale. nguuru Sénégal def na lu bëri maanaam mu jëm lu jëm surtout ci wàllum développement askan wi mu jëm itam ci wér-gu-yaram gi maanaam santé mel ni itam ay unité de transformation ak xeex ak surtout ñàkkum ay école maanaam lii di collège ak ay lycée ci frontières yi tey nag la ñu doon lancé lii di unité de potabilisation fii ci dëkku Daara Alaybe muy financement bu am solo de deux cent soixante-dix millions de francs CFA ak euh, château d'eau bu bees tàkk euh, fii ci commune ba di Demet euh, cent cinquante millions de francs CFA dugal nañ ko foofu maanaam ngir Euh, tabax ay poste ci frontière bi mel ni ay poste de gendarmerie ak euh, douane amal nañu itam construction poste de santé fii ci commune de Walalde ngir la euh, saafaral askan wi seeni jafe-jafe jëm ci pàcc mi. ouvrage vient s'ajouter l'inauguration du poste de santé de Walalde pour une meilleure prise en charge des problèmes médicaux des population de la commune askanu diwaan bi ñu ko gën a ràññee nag ci turu le lion de l'île Amorphile Moussa Oumar so daal dina itam lancé appel au calme et à sérénité ndax suñu réew doon na tey vitrine de paix et ñun ñëpp nee na ñoo bokk ndey ak bayi maa ngi appelé maanaam maa ngi woote à l'unité des cœurs ndax Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar euh, lenn rek moo ñu waral euh, ci jamono ji Mm, lu ñu sox war a soxal moo di développement ak émergence su Sénégal. qui est l'homme de la situation à même de maintenir le pays dans la voie de l'émergence. Monsieur le ministre, il n'est pas étonnant que lors des dernières joutes électorales et des joutes électorales à venir. te kii di président de la République son excellence Macky mu ngi koy jëfee bu baax a baax mu ngi ci tànk yooyu le moom moo waral tey eh, ngeen gis ay réalisation yu bëri fii ci diwaanu Fouta rawatani itam fii ci biir Île à Morphil. cent pour cent cent pour cent au niveau de l'île à ay mouvement des jeunes ak ay jigéen yu takku takku wane nañu seen cofeel ak seen reconnaissance bu mot sëkk ci seen njiit ginnaaw ay réalisation yu am solo di pima di def fépp ci biir réew mi. fii ci Podor seen natango Abou Kane pour la radio télévision Walfadjri. ma ngoog Abou Kane ñu fas yéene bu ci feetu indépendance 4 avril 2021 yem ak juróom-benneelu fukkeelu indépendance ak benn gannaaw bu Sénégal moomee boppam atum ren ji nag mbir yi du demee noonu défilé 4 avril euh, duñ ko mun a amal bu ñu sukkandikoo ci dogal bi kilifay jël waaye nag xel dem na ci Doudou njaay Coumba Rose. nam fa daan taxawee at mu jot fekki nañu njabootam ca HLM dañ ci teewlu xooxaan ndong dimanche ji yemook ñeenti fan ci weerub avril la réewum Sénégal di amal juróom benn fukkeelu anniversaire ak benn gannaaw bu mu moomee boppam jamonoy feetum indépendance nag ay xel yu bëri jëm ci ndem si yàlla Doudou Ndiaye Coumba Rose moom mile doon organiser défilé majorette yi te génnoon àdduna fukki fan ak juróom-ñeent ci weerub août atum 2015 ñu fekk ko ca këru famille ba nekk ca aslem doomam gi di Tafa Ndiaye Rose nag di fàttali ay souveniru Doudou Ndiaye Coumba góor gi nga xam ne nag moom mooy El Hadj Doudou Ndiaye Coumba moom moo àndoon ak Germaine Accouni ak Senghor pour indi woon majorité te loolu ci atum 1976 la woon donc ci lañu ko dooree donc mu nekk loo xam ne Germaine moo ñëw indi fecc bi Doudou Ndiaye Rose indi tëgg mi wax naa sànq ni majorité fanfare de l'armée ñëw leen doon accompagner mais Senghor moo waxoon ni dañoo bëgg léegi nag ñu africaniser ko ci la Doudou Ndiaye Rose ñëw indi ay sabaram. atum 2020 gi ñu wees ak atum 2021 gile nag réewum Sénégal du feete feetum indépendance ndax mbas mi di Covid-19 li ni mel nag jur weetaay ci njabootu Doudou Ndiaye Coumba Rose mbas mi nga xam ne moo ñëw ci réew mi indi li mu indi tax na ba mënuñoo difale vraiment muy lu ñu manqué trop nag ndax dafa bokkoon suñu ar suñu archive culturelle suñu plan dañu koy def même bu ñu waroon dem tournée Europe date bii Doudou Ndiaye Rose danaan date bi duma dem fenn kon bu ñu toogee ñaari at mu manqué dinañu manqué. moom Tafa Ndiaye Rose nag yëkkati na ay kàddoom it ngir xamle ni koppar yi ñuy jagleel artistes yi ngir jàppale leen ci mbas mi di Covid 19 jotu ci wàllam. bu ma nekkee artiste boo xam ne su ma premier yéeg si scène 1971 et c'était devant le président Senghor kon yaakaar naa ni bokk naa ci artistes yi nga xam ne war nañ leen kii waaye nag réew noonu la. réew bu ñu la desee xam yu bari dalay lay romb mais waroon na tey boobu xaalis bi deuxième tranche bi bu génnee njabootu Alaaji Doudou Ndiaye Coumba jot ci. ca noone la yëkkatee ay kàddoom itam ngir xamle ne liggéey bi fi Doudou Ndiaye Coumba bàyyi woon mu ngi wéy ba léegi. bi góor gi génnee àdduna comme ni ma koy waxee relève bi fu ne la nekk ci àdduna ndax du dafa njaboot te fépp foo xam ne doom ma nga fa waxuma sax doom mais beneen sénégalais buy tëgg sabar rek ci relève Doudou Ndiaye Rose la bokk. moom daf fi bàyyi benn flambeau tàkk. mangoog euh, bàkk googee du mun a jib euh, ci 4 avrilu euh, ren ji 4 avril nag saay bu mosaan a jot lii di hymne national beeg drapeau national ñu bari ci askan wi di ci bàyyi xel waaye nag ñaar yooyu le jafe na ku ko xam la muy tekki ci miim réew muy bàkkum réew mi hymne national ak drapo national dañ ci teewlu reportage yu Fatou bintu Diouf. <laughs> mënoon naa ko de waaye fu mu ne nii moom dina métti la pour pour ma ma ma ko fii moom. mën naa ko def par arabe parce que. man mi xanaa ci arab ah? arab kàddu yi sax dafa reetaan lu boo leen gisee ñoom sax daanaka ñu benn yoon ni mënuñu daal di euh, tarif hymne national bu Sénégal. Pincez tous vos koras, frappez les ku ko daal di dégg xam ne hymne ba nga xam ne kaka bind du kenn ku du njiit réew ba woon di Léopold Sédar Senghor waaye nag sénégalais yi ñoom xam leen nañu ni lu waral mënuñu ko jàpp. waaw ah, xam nga problème mooy lan ñun ay école nante la ñu yem nante yi. yaa ngi comprendre donc tey jii nii pour te dire vrai malgré malgré euh, malgré sama sama sama sama jëmm mais je suis fier d'être sénégalais franchement parlant. waaw noonu la mais nag xam nga rek. te li ñoo jaxasoo ba finalement xam nga pour woy lim national moom mënoon naa ko bu baax a baax a baax mais fu mu ne nii moom doy na war pour ma woy la ko ba mu jeex de. moonte sax bu weesoo hymne national bu Sénégal bëri na yenn ci ay symbole de taarixu réew mi yoo xam ne nag ñu bari daanaka xamuñu ko muy drapeau bu Sénégal ak sax devise réew mi. Sénégal un peuple un but une foi. ñu bàyyi ñu bàyyi xel nekk benn quoi. mu ñu mooy valeur Sénégal donc ku xamul sa valeur réew munoo fonk sa drapeau loolu mooy problème Sénégal. donc tey kenn bu fekkente ne yow da nga ne Sénégal nga wala da ne réew sangam laa bokk drapeau boo rombee drapeau war ngaa taxaw sa benn trente secondes saluer drapeau bi doo ko romb un peuple un but voilà xool nekk lu benn parce que tey boo dégloo ñenn ñi di wax soi-disant ay njiit réew di wax loo xamante ne tey day ni division ci réew loolu c'est loolu c'est waaw loolu dëgg la sunu drapeau daal mooy sunu symbole. boobu dañ ko war bu ñu sukkandikoo ci taarixu réewum Sénégal drapeau national ba ca hymne bi ak i devise bu Sénégal bokk na ci ay symbole yoo xam ne daanaka dafa bokk ci biir réew mi am la nga xam ne nag bu caa nekk moom la daal di firndeel waaye nag sénégalais yi ku ci nekk xamul lan mooy signification wam ndax ku nekk daal na mu ñëwee sa xel rek noonu nga ko daal di Disipa las tenebras, soles no te ve, soles no te va. Debout frère, voici l'Afrique rassemblée. Vivre de mon couvert, et que le hymne national ba tey ci euh, avril bi la ñu desandi benn fan ci avril tey ji la Euh, faral nañ ci gis euh, poisson d'avril yoo xamante ne daanaka naxe mbaay la euh, jëmmal lenn loo xamante ne ñu bari xëy na mun nañ ko gëm te la ca biir yépp doon lu wuteeg la cay am ñu fore ko nag ci réewum tubaab yi te ji loolee tàmbale naa law ci réew mi naka la ko askan wi jàngate dañ ciy teewlu reportage yu Serigne Gueye kaf ak say xarit wala sa famille wala sax ay nax yu nuy dégg ci média yi wala ci internet poisson d'avril di xewat wu fi fekkul baax waaye sénégalais yi xam nañu ko. sénégalais yi naan da ngaa am euh, accident am na fële wala leneen ba wax ko ne sa parent wax tax sa parent yooyu. mën nañ kaa si genre fo fo comme euh, entre copain ak doomu bàjjan ak doomu nijaay nga fo ko quoi. Dame Ndao ak Mor xalaat ne. poisson d'avril melatul na mu meloon ci jamono nit ñi gënoon nañoo yomba nax. bu njëkk euh, da ngay toog en certain moment ñu woo la li la njëkk wax loolu ngay gëm daawu ci bëri lu ñu faral di nax mais maintenant dañoo dem ba dañ ko habité wu dañ ko dañ ko tàmm. mën na ne dund nañ ko ay at ndaxte li nga xam ne ni am nga expérience bi dund nga ko benn yoon ñaar yoon ou bien gis nga koo xam ne nii dund na ko tey ñu ñëw bëgg la see naxaat tamit loolu suñ la si naxee tamit yaa ngi nelaw. bile tradition ñàkkut mukk ay loraange bu ñu sukkandikoo ci kàdduy Mor Seye Niang étudiant bi xamle ne poisson d'avril mën naa yóbbee ba ci ñàkk gëm dëgg sax ci weeru avril. chaque fois bu périod bi agsee rek automatiquement beaucoup de monde passe euh, au mois d'avril. donc raison pour laquelle lépp loo wax rek dañ ko mettre en cause. ay nax yu bëri te wuute wala ay kaf yu niru lool dëgg léppay xew ci li ñu tuddee feetu premier avril poisson d'avril ci jamono xewoon lool mel ni luy gën di ñàkk solo bu dee ci kaf rek la tege woon léeg léegit it mu juri jéeya. ngag jàmm sante ci réewum Sénégal euh, rawatina yi tamit euh, li xew ci diggante euh, jullit beeg catholique bi dialogue islamo-chrétien loolee tamit ñu koy jëmmal saay su ne rawatina saay bu feetu Pâques jotee nga gis jullit ñi di sàkku seen cër ci ngalax bi loolee doon luy rataxal diggante dañ ci teewlu reportage yu Ndiaké Mbaye. ay fan mi ngi nii waxtaanu nga gi lëmbee réseaux sociaux yi ñam boobu chrétiens yi di séddale jullit yi bu pak jotee di luy gën a rataxal diggante ñaari diine yi. waxtaanu ngalax bi moom li muy symboliser mooy dialogue islamo-chrétien bi nga xam ni moom moo nekk Sénégal e je pense que loolu mooy def maanaam la beauté du pays quoi dialogue islamo-chrétien ci atu yi Sénégal am yi gën a mag ci la bokk d'ailleurs période bi bu ñëwee dañuy remarquer discours yi ay. am naa copine Ndiago sama copine Ndiago xam nga rek dañuy tooñante nga laxin fu mu toll affaire yooyu quoi te ça c'est très joli quoi c'est ce qui fait la beauté de notre pays. ndaw lii moom di ñu xamal ni suñu mbokku chrétien yi dañu war a doubler lu ni mel ngir fay boru daaw bi. ñaari pot walla nga jot sa xolal sa paan. waaw comme ni ngay waxee comme que. Euh, daaw feete wuñu ko on pas eu l'occasion mais euh, ren moom alhamdulilah mais juste aussi encore en respectant les mesures barrières. mu di lu daaw da di rafetlu moom miy jàpp ne dialogue bi mooy luy taaral suñu réew. Sénégal jàmm lañ xam kon suñ demee ba chrétiens yeeg musulmans yi di tooñante parce que récemment démb rek maa ngi dégg musulmans yi di naan joxe nañ korité joxe nañ tëbaski joxe nañ tam xarit maintenant tur waa chrétiens yi la kon donc yoon la tamit ñoom dañoo war a joxe parce que lii lañ xam jàmm jàmm jàmm rek lañ xam. bu kenn dugg suñu diggante ñun Sénégal xamuñu chrétien xamuñu musulman lu ñu xam mooy ñu booloo nekk benn ngalax bi moom man sama part na ñëw waa sama part moom na ñëw parce que jàmm lañ xam lii moom rafetlu naa ko trop voilà. comme ni ko jullit yi di dafee seeni bés séddale ngalax bi doon na luy gën a rafetal diggante jullit ak chrétien ba tax na ñu ñu dajeel ñëpp jàpp ne diggante bu rafet bi am ci diggante ñaari diine yi doon na lu wutale yeneen réew yi ak suñu réew. Euh, jeudi saint euh, alxamisu tey ji mandargal lu bëree bëri euh, ci li nga xamante ne mooy pak bek wàccaayu feet googule naka lañ ko dundee ak tamit matuwaay yañ ca jël ak la ca ngeneel bu ñu sukkandikoo ci suñu mbokk chrétiens yi dañ ciy teewlu reportage yu Toussaint Maurice Senghor alxemes gu seela gi la église catholique bi nag di daal di fàttaliku reer bu mujj nga xam ne moom la Yeesu Kirista amaloon ak ay apootaram wante ci bés bi ba léegi nag ñoom ñi le sax di dinañ dem rek ci jàngu bi ngir mun kaa fàttaliku wante abbé Alphonse Birame Ndour ñëwaat na rek ci xew-xew bés boobu boobule. am na pàcc gi nga xamante ni fa la ñuy raxasee tànki euh, apootar ya taalibe ya ci biir jàngu yi dingeen gis ni danañu tànn ay euh, ndaw ci biir euh, mbootaay bi ngir raxasal leen seen tànk daaw ak ren nag euh, am na ndogal bu jip ngir nañu ah fekk ñu ngi ci mbas mi loolu duñ ko mën a wéyal wande Euh, teggiwul dara ci solo su jës googu. leneen lu ñu mun a jàpp rek ci bés bi bokk na ci kirista bi nga xam ne dafa suufeeli woon rek ngir raxas ay tànk ay apotaaram. lu ñu santaane moo di ni mu ko defee moom ca bés ba nañu koy defee noonu itamit muy mandargawu suufeelu ndaxte moom mi di borom bi bu fekkente ne moom mooy raxas tànki surgam ya wan nañu foofee ne dañoo war a suufelu dëgg te mën a topp li nga xamante ni mooy solos gi mooy surgowu surgowu ki nga xamante ni moo nekk ci euh, moo nekk ci soxla ngir ñu mën ko jottali lii ko borom bi suñu yàlla yéene suufelu googu lii di kàddoom bi ñu ko tuddee ci nasaraan ci latin la jóge itamit mu ngi jóge ci humus humus mooy suuf si ki nangu suufelu ba yegg suuf ngir borom bi suñu yàlla yëkkati ko. alxemes aljuma gaaw nekk nañ ay bés yu ñu war a fàttaliku ci semaine sainte bi ñu nekk. E, dugg nañu ci ay bés yu sell yi ñu koy ooy semaine sainte tàmbale ko ci dibeeru soosoor ya fas yéene ko wëyal ba ca e, pàkk gu sell ga. ci biir xolu semaine sainte bi nag mu am ñetti fan yoo xamante ni moom la ñu ooyee triduum pascal boo déggee triduum pascal ci latin dafa tekki rek ñetti bésuy Pâques ya ñetti bésuy Pâques ya mu di arxemes gu sell ga di aljuma gu sell ak gaaw gu sell ga boolewaale ci diibeer gu sell gi looloo waral euh, ci biir euh, jullitu julitewu jàngu bi ñu ekkati ñetti bés yooyu nit ki wax dëgg yàlla bés yu ëpp solo ci biir li nga xamante ni moom la ñuy dund ci wàllu koor gi ndaxte mooy njeexitalu koor gi. aljuma mu sell bi moo topp rekk ci alxemes gu sell gi wante ci bés boobu sax lañu daldi fat màggal dékkaliku yeesu krista ci suñu biir wante ci jamono jooju ba léegi rekk mun nañ see jàpp ne yeesu krista ci la amaloon reeram bu mujj ak ay apootaram mangoog uh, ñu ngi koy jaajëfal dañ ci dikkat na mu gën a yaatoo ci feetu uh, pak bi mbokk yi ci noone ñu jukki leen xeetu yéenekaay yi fi jot a yegg si tey ñu fas yéene ko doo rek Walf Quotidien yéenekaay bi jiitu ca fajar